ay présidentiel, présidentiel, présidentielle c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple mais Gorgoral a fait gox goxaal élection locale gox nit ku nekk sa gox te nag suñu gox bi ñu buñ koy dénk nit dañ koy dénk ñu xam ak koo xam ne xam nañ ni kii mun doxal suñu gox waaw loolu moo tax aussi tey li def ñuy def dañ profiter ñun les femmes de l'Alliance pour la République ñun ñu ngi ci Benno Bokk Yaakaar mais tey ñun Alliance pour la République moo

waaw madame Fatoumata Gaye bu dëkk fii mi ngi wax fan yii ni coalition Macky 2012 jigéen ñee ko porté mais jigéen ñan la nañu ko wax yéen laay laaj yéen la te ñun suñu waxee coalition Macky 2012 ñan la ñun ñoo ci gën a yey ñun laay l'alliance pour la république est-ce que ñun dem nañ fa ba ñoo candidature mais on n'empêche personne d'être candidat à la candidature on est en démocratie ku nekk ne na ko nekk

waaw parce que moom xam na koy liggéey ak ku nekk ci commune bi comme nit ñu ko waxee jaraaf depuis dekkal ngor ba tey bougé moo fi jëkkee ni président Macky Sall kon nag ñun tey bu ñu kenn wax looloo xam ne waxuñu ko ñun jigéen ñi ñëpp nañu laxasaay bu ñu kenn nax bu ñu kenn tuur nga nëb waaw ñun ñoo nekk alliance pour la république beneen jigéen nekku fi kon nag porté wuñu beneen candidat benn candidat beneen candidat à la candidature amuñu waaw mun nga dem nag ci journaliste yi mun nga def sa déclaration mais nag bu ñu mbubboo bu ñu mbubboo tey madame Sow mën na jóg ni man bokkutuma alliance Baare bi damay candidaté am na ci droit on est en te gox-goxaat la ku nekk mu nga yor sa mouvement wala sa dara mais nag bul buggoo buggoo suñu coalition buggoo suñu parti di wax ni ñoo porte sa candidature kon nag ñun jigéen ñi nañu laxasaay te nañu commencé ne liggéey bi commencé na bu yàgg sax mais nañ ko continuer covid bi moo ñëwoon mais léegi covid bi tane na dañu continuer di respecter suñu geste dem vacciné wu exemple ñun ñëpp nañ dem vacciné wu